لنا منه الشفاعة في غد ينال رضا كل عبد واحد على خطي في ذنب أو عن تمدي جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا شفع المحبوب جاز المباح رجوع barakaatuhu mbokki àdduna mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen émission Ilal Mawlidi ci Bikol studio ànd ak Oustaz Mansour Diène di waajal gàmmu Tiwaawan ñu nekk nag ci guddi juróom-ñaareel bi guddi juróom-ñaareel bi nag ci burdu bi mu ngi tombeek bunt bi nga xamante ni nii fii israihi wa mirajihi sallallahu alayhi wa sallam bunt bi wax wa sallam jóge gi mu jóge Màkka ci guddi dem baytil maqdis ci guddi te muy dox weer waaye mu daal di jóge baytil di ci guddi gi daal di dem fa nga xamante ni mooy asamaani juróom-ñaar fekki boroomam moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni teraanga bu ko yàlla defal la te mosu koo defal yonent te dootu ko defal bindeef sallallahu alayhi wa sallam buntu boobu la ñu war a jàngat tey mu ni yaa xayra man yemama al aafuuna saaxatahoo saayan wa fawqa mutuunil ay nuqi rusumi fii dafay gaaral ki nga xamante ni nii dafa am soxla jug di ko doxi waaye ki jug di am soxlaam di ko doxi yox tànku neen am na fu mu mën yegg am na fu mu mënul a yegg amaana du àgg ca président waaye ki yor kaat kaatam wala wit witam am soxlaam di ko doxi mën naa àgg ci ministre war mu àgg ci président waaye président bu dugg avion nag génn réew ak réew di doxi soxlaam ca ka muy jëm ku rëy la waaye ca ka président di dugg avion di dem pour faji soxlaam ki yor tànkam di dox mënul àgg ci kooku kooku mënta fajal kii soxlaam waaye kilifa gi nga xamante ni nii nag ran yooyu yépp ku ci nekk boo ñëwee mu fajal la sa soxla kenn la mooy rasulallah sallallahu alayhi wa ni ko yaawoonaa la xayra man yow mi nga xamante ni yaa gën ci nga xam ne yemama jublu na na way xaaraan ya mooy ñey uti ku leen fajal seen aajo ñu am seen soxla du jublu saaxatuhoo ëttam ñii saa yan dañuy dox ndax amuñu waruwaay ndax seen classe sociale foofu la toll wa fawqa mutuunil ay nuqi ak ñi nga xamante ni nag bu ñuy doxi seen soxla ñu nga nekk ca kaw naaga ya ar rusumi yeewee dëgg suuf mooy ca kaw voiture ya de luxe ya wala ci kaw avion yi kon ku ci nekk sa soxla am na fu mu toll sa classe sociale am na fi mu toll ka fajal sa soxla am na fi mu toll waaye nag ka fajal sa soxla kay fajal soxla président kay fajal soxla ministre baadoo la àggul ci moom waaye tamit ki nga xamante ni baadoo la ki kay fajal soxlaam moom baadoola kooku yi tamit dooleem xaw naa wàññeeku waaye yonent bi sallallahu moo mën a fajal ñëpp soxla moom rasulullah sallallahu alayhi wa man huwa al ayatul kubra li mu'tabirin wayaa ngay waxaat wayaa woo naa la man bi nga xamante ni yow mu màgg mi nga xamante ni huwa moom rasulullahi al kubra mooy kéemaan bu màgg màgg ba li mu'tabirin ñeel ku am xalaatan xelam di xalaat ku yor sa xel di xalaat la mu lay jox di nga xam ni kéemaan bu mel ni rasulullah mosula am ci suuf ndax li mu réalisé yépp te amul woon mooy yooyu moo tax euh, Georges Bernard Shaw wax ni il était César et le pape réuni en un seul être sans armée sans garde du corps sans palais sans revenu fisc s'il y avait un homme au monde qui avait le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed puisqu'il a reçu tout le pouvoir sans avoir les instruments ni les supports kon kooku ku am xel di xalaat dina xam ni ku toll nii amul moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa woo naa la man ki nga xamante ni huwa moom yonent bi a ni'matul uzma mooy xéewal gu mag ga li muxtani min kay màng ji xéewal képp koo xamante ni foo mën a bokk koo mën a doon foo mën a jóge màng ngi di wuti xéewal xéewalu àdduna wala xéewalu alaaxira xéewal bu mag ga bool bu mag ba ñuy tibbe te lu jeex mooy kan mooy rasulullahi sallallahu ndax yàllaa ko jox lépp moom yonent bi mu lay taay la nag di dugg ci isra wal mi'raj yonent bi sallallahu alayhi wa dafa fanaan ci néegu ummu haani julli ñaari rakk yim daan julli tëdd nelaw bi mu tëddee nelaw jibril xotti asamaani juróom-ñaar ak soixante-dix mille malaayika soixante-dix mille malaayika la jibril xottee asamaan di riir asamaan yi riir jibril ñëw xotti plafond bi fekk yonent bi tëdd di nelaw mu jël laafam moom jibril raay ko ci lexi sang bi mu sedd guy rasulullah ni xefet jàkkaarloog jibril jibril ni ko fa innaka turidu an tara rabbaka fi hazihi layla ndax dangaa bëgg a gis sa borom ci guddi gi yonent bi ni ko naaw bëgg naa gis sama borom ci guddi gi mu ni ko tukallimuhu dangaa bëgg a wax ak sa borom ci guddi gi mu ni ko bëgg naa wax ak sama borom ci guddi gi mu ni ko watara min ajaibi ndax bëgg ngaa gis sa kéemaani borom ci guddi gi mu ni ko am bëgg naa gis sama kéemaani borom ci guddi gi mu ni ko fa nii amarani an bi bika yàlla moo ma digal pour ma indi la jël si la indi la xum yaa muhammad seydina muhammad daal di jóg bi mu jógee moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yeesal njàpp daal di dox ñaari paa jibril daal di koy dab tëral rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko tëralee mu xaar dënn bi génnee lu ñuul ci dënn ba def ca kaasuk leer lu tax mu def ca kaasu leer li yatasia qalbuhu li xifzil asraaril ilaahi wal kalimaatu rabbaaniya ndax yonent bi fu mu jëm leer yàlla yi dafa foor ndax yonent yàlla Moussa di yonent li muy foor foor li muy màgg-màgg garaat ba mu ne yàlla dama bëgg nga gi dama laa bëgg a gis arini anzura ilayka dañu ko lan taraani amoo degré gis ma yonent bi yonent yàlla Moussa insisté yàlla ne ko dinaa la wan unzur ilal jabale fa in fa taraani yàlla daal di jël dogitu leer ca dogitu leeram ya wàccee ko ci montagne ba Moussa daal di daanu xam montagne ba fak euh, daal di daanu xam bi mu daanoo xam moom moom Moussa te yàpp ak deret la yor yonent bi yàpp ak deret la yor fa nga xamante ni nag dogitu leer ba ñu jëlee fu ñu ko jëlee woon pour wàccee ko ci xurba yonent yàlla Moussa daanu xam yaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa la jëm nag kon yonent bi comme foofu la jëm te yàpp ak deret la jë la yor yàlla da koy préparé lu mu koy préparé da koy doom domte ko def ko noo xamante ni mooy tax yaramam mën a attan kàddu yàlla yaramam mooy tax mu mën a attan leeru yàlla ba mu demee foofu leere du ko lakk moo tax mu sotti ko kaasukle liyattasia qalbuhu li xifzil asrari ilahi wal kalimatu rabbaniya mu kasewaat dënnu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bila alatin wala alamin méttiwul te amul benn loo xamante ne amul paaka amul ciseau amul dara yonent bi daal di jóg daal di dox ñaari pas bi mu doxee ñaari pas mu gis alburaax taxaw ci kanamam alburaax di daaba goo xam ni moo ëpp mbaam waaye àggul ci fas alburaax yonent bi sallallahu alayhi wa jëm ci moom pour yéeg daal di màmm jibril daal di koy téye ni ko amaata saxiya buraaq fa wallahi maa raki rakiba nabiyun ashraf inda allahi mun muhammadin nee ko amul yonent bu toll garaat ni muhammad ku la mës a war ñi la mës a war ci yonent yépp ci grade ci yàlla yonent bi moo leen ëpp grade moo tax alaaj maa ngi wa duunal badri duunallaahi xaqun jamiu rusli taalamu duuna xeetu fi gadi yonen yanaalu rida kullu abdin muwaxidi ala xatayin fi dambi waaye maa ngi ne gars yi ñu mu ne jamee xor rusli mboolem yonent yi duunal badri ay taxtal badri nekk nañ ci suuf yonent bi fan duunallaahi ci yàlla xaqan yonent bi Seydi Hadj maa ngi ne taalamu di nga xam ne ñoom yonent yi yëpp yonent yi féete leen kaw duuna xëy ni ay ginnaaw baadal mawti bu ñu dee di nga xam ne rasulullaahi du seen morom jibril mi alburaaq toogal yemal ndax ñi la mën sa war yëpp ci yonent Muhammad moo leen gën a tedd alburaaq daal di rus bay ñàkk fa aqsam jibril bi li jibril daal di téye ngalaab ga mikaayil téye rikaabiha waay ba asrafil xalfaha seydi haaj maay akrim bi man jibrilu min quddaamihi mikaalu asrafilu shamsu ayaami jibril mikaayil asrafil la ñuy tedd tedd doon surgay rasulullahi yonent bi yéeg ci alburaax bi mu yéegee ci alburaax alburaax wax nañu ni asamaani juróom-ñaari juróom-ñaari paa la ko def ndax fu bëtam tegee tànkam àgg fa waaye alburaax jóge màkka jëm baytil maqdis bi mu àggee baytil maqdis moom alburaax daal di wàcc moom yonent bi ànd ak yone euh, euh, malaaka yi malaaka yi escorté ko muy riir jaww ji riir yonent bi ci aw alburaax ñu dem baytil maqdis ba ñu àggee baytil maqdis yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcc yore jibril jël baaraamam bënn ko dugal alburaax yi weew yonent bi dugg ci baytul maqdis fekk fa cent vingt-quatre mille prophètes ya fekk fa trois cent treize mursalina ñi yàlla mës a yónni yëpp ñoo nga fa xamuñu ko ci gën a tedd Moussa nga fa Isa nga fa a nga fa Ibrahima nga fa ñu ni mbooloo mi ko ko war a jiite tey yonent bi ni tëll ñoom ñëpp ñu jóg taxaw tóojal ko ni ko alhamdulillahi lazi jaalaka xaatimal anbiya fa niamal nabiyu anta wa niamal axu anta wa ummatuka xayrul umam jibril ba max yonent bi ni ko taqaddam ya muhammad wa salli bi ixwanika min al anbiya rakaatay ni mu jiite leen ñaari rakk sëñ baa nga an jamiul anbiyaayi wa rusli fii radaqal atqiyaay ba mu paree duri jama duri jaminti baaxin mu yéeg ci asamaani juróom-ñaar di dem benn par benn asamaan bu mu dem ak yonente ba mu fay fekk nga teeru ko dalal ko yóbbante ko ci yàlla jibril daal di dem ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asamaan si di riir asamaan si di ndax cortège bu bëri yonent bi di dem riiru riiru cortège ba di wàññeeku ndax malaaka bu nekk am na fooy toll ci asamaan yi boo ko dépassé leer yàlla yi lakk la foofu ngay yem malaaka yi di wàññeeku di wàññeeku ba yonent bi ak jibril rek a attan leere yonent bi jibril di dem yonent bi di jibril di dem ba mu yàgg yonent bi wax dëggatul jibril wax yonent bi geesu gis jibril toog ci air bi yooyu yonent bi ni jibril yatrukul xalilu xalila ndax xarit dina ànd ak xarit ba ba barab bu mu miinul bu mel nii mu nar ko faa bàyyi mu ni ko law danawtu an mu la laxraqat nil anwaar su ma jegee lu toll la daggitu baaraam leeri yàlla yi lakk ma mënatumaa dem yaa mën a dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dem dégg baat bu ni ko udlu yaa muhammad ñëwal jegesil li tara min ajaabi rabbika yàlla ni subhaana allazi asra bi abdihi leylan min al masjidi al xaraami ila al masjidi al aqsa lazi barakna xawluhu li nuriyahu min ayatina al kubra al ayat al maqsusa bi zaat yi yàlla mënoon na koo jox li mu koy joxe ci suuf waaye dafa am ay kéemaan yoo xamante ni jëmmi yàlla ga moo ko jagoo yonent bi war koo gis teraanga bu kenn mësula am yonent bi baat bi ni ko udul yaa bi di dem di dem ba àgg ci xadra ba ci maanan mu mel ni day summi ay dàllam baat bi ni ko dus yaa muhammad alal bisaat yi doxal ci ci tapi yi yaa tax ñu bind tapi yi kon wa su sajaadaati takriman alal qusami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem ba ci kaw mere summi dàllam ñu yurus alal bisaat yi te yonent yàlla Moussa xur wa nga xamante ni leeru yàlla fa naroon a wàcc rek ba mu fay dugg dañ ni ko faq la'an alayka innaka bil waadil muqaddasi tuwa yonent bi daal di ñëw ca xadra ba ak na mu rafetee xeetu couleur bu nekk nga fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni tëll fekk fa mu ne attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi nee na mboolem nuyoo yuy mat yuy tegtale màggug yàlla ñeen na yàlla mboolem nuyoo yuy sell ñeen na yàlla mboolem nuyoo yu teey ñeen na yàlla yàlla delloo ko nuyoo ni ko asalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa alayka ayyuha nabiyyu wa barakaatuhu alayka ayyuha nabiyyu yonent bi ak ñi ko teew ñëpp daal ni assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin yonent bi fàttaliku ñamu bàyyi ci suuf mu ibadillahi saalihin ñu àndandoo ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjidi al mu ni ko sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fii daajin min azulami mu al isra mooy sayruuratul layli isra bi mooy jóge gi mu jóge màkka dem baytul maqdis miraaj gi mooy jóge gi mu jóge baytul maqdis daal di dem asamaani juróom-ñaar saraytare ñaan nga min xaramin tukkee ci xaramu màkka min ngi doon ibtidaaul gaaya laylan ci guddi ilaa xaramin jëm ci xaramu baytul maqdis mu doon intihaaul gaaya baytul maqdis kama sara naka lay reñaare albadru weer fii daajin ci kukk mi na zulami ci lëndam weer ni muy guddi weer wi rañaan côté bii jëm côté boobu noonu la rasulullaay def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy albadru moo tax yàlla woo ko ni ko yow weer wi taha taha boo ko xoolee mooy albadru moom rasulullaay sallallahu alayhi wa moo tax Seydi Hadji Malick wax na ci xilaas 70 fois badr benn rek moo ci dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko wa a fanaan nga yow rasulullahi tarqaa di yéeg di dem di yéeg di dem ilaa annil te jëm ca ba nga am ba nga àgg manzilatan wàccuwaay mooy barab boo xamante ne xaw sey ni jege na ci diggante xoccek ak xala nee na maqaama boobu nga am lëm tudd rek deefu ko jot walam turam yi kenn dootu ko sàppooti sax koy gis muy ñaanati ci jamono ci ginnaaw yonent bi na yàlla naa dem ba yonent bi fi mu demoon ci yàlla yàlla naa gis yàlla kenn dootu ko ñaanati ndax xam nañ ni ne maqaama boobu fawtul mu naa kenn mënatu koo amati yonent bi moo ko mës a am te keneen dootu ko amati ndax yonent bi moo gën ñëpp moo tax damay wax ni ki gën ki la gën ki ko gën nabee ko gën nabi gënantewul ak ñu ñu gën dafa fekk ñi gën mu gën leen te ñu gën la ñu gënee ñu ñu gën ñu ngi ko amee ci gënante sopp rasulullahi sallallahu alayhi ku la gën rek cëlam la gënee mooy daf la gën a sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp moo tax damay wax ni lu waay du wuyoo bu ca way lii ci am ca way waaye lu fi waay di wuyoo ba way ca wee ca am ca way war na ko way rasulullahi ndax ba dara du dara kenn du kenn lenn du lenn na bi rek a fi nekkoon di kenn di lenn di dara def fi li defu ba dara di dara doomu aadama ji du doon dara màgg tekki dara ba def fi dara ji ñu naan doomu diw jee def dara ji lépp ci dara jee rasulullahi moo tax wa qadamat ka jamiul anbiya ibniha wa rusli taqdima maxdumin ala xadami wa qadamat ka bi maanaa taqaddamat ka jiital na la yow rasulullahi jamiul anbiya yi mboolem yonent yi bihaa ca asamaan ya ñoom ñëpp la jiital topp sa ginnaaw war rusli yonent yi ñi yàlla yónni woon tamit jiital nañu la taqdiima maxduumin comme jiitalu ku ñuy liggéeyaloo ala xadami ca ka muy liggéeyal chef de chantier bu ñëwee ñëpp dañuy dellu ginnaaw jiital ko di ko wan nekk lii lañ liggéey tey lii lañ liggéey lii moo des lii moo des ba yonent bi ñëwee noonu la ko yonent yi jiitaloon di ko rendre compte di ko wan ndax mooy seen patron moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa anta taxtariqu sab'a tibaaqa ngay xotti juróom-ñaari dëndi asamaani bihim ànd ak sa cortège malaak fii moo kibin nga nekk ci cortège boo xam te ni kunta nekk nga fii ci cortège ba saaxibal alami di dugg ci oto ba nga xamante ni drapeau bay symboliser ne président bi fi la dugg ci nga dugg yow rasulullahi ndax yaay président président yi yaay buuri buuri xataa lam tadaa dem ci ba bàyyiwoo che woon benn espace li mustabiqin li talabil musaabaqa ba bàyyiwoo benn espace ba nga xamante ni ku bëgg a ñëw def lu la lu ëpp li nga def mën naa too àgg foofu déedéet dangaa fàtt bunt yépp mi ne dund wi ca jege ga wala marqan li mustanimi déet benn yéeguwaay nga koy bàyyi di ñeel ki sàkkoo yéeg pour dem ci asamaan yi yéeg nga ba sës kon bu mën ku ñëwati day sos si sa ginnaaw loolu moo doonoon buntu juróom-ñaareel bi doon wax ci isra wal mi'raj bi yonent bi demoon ci asamaani juróom-ñaar incha allahu suba ci bikoon studio ak oustaz Mansour Diène dinañ leen indil buntu juróom-ñetteel bi jihaad ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defoon wafaqana allahu wa iyaakum li taati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ينال رضا كل عبد واحد على خطي في ذنب أو عن تمدي جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا شفع المحبوب جاز المباح رجوع